والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey dellu si neen fas yéene waxtaan ak yéen ci mawduu bu am solo mu di muñ waaye balaa ñu dugg rek ci thème bi ñu nuyu mbokk yi nga xamante ni bindoon nanu émission bi mu mel ni nag tey dañu dikk ak yéen ci wàllu lu ñuy tuddee as sabr mu di muñ muy nag muñ nag nekk lu am solo ci doomu aadama bi rawatina ci jullit bi ndax ci muñ nga mën a yéege jëm ca garaat ya gën a kowe ndax e, gis nañ ne jamono bi ci nekk ci ay fitna ak i coono ak i nattu su muñ amul rek dara du baax ba tax na itam e, yàlla ñaaxaate na ci wàllu muñ ci biir alquran yonent bi itam ñaaxaate na ci wàllu muñ ci biir xadis façon ñaaxaate yoo xamante ni jullit bu ci nekk war nga koo gëstu pour mën a gën a dëgëral sa xol ci wàllu muñ mu mel ni am na benn saxaaba bu mag bu ñuy wax Ali ibnu Abi mu nekkoon rakk ci yonent bi sallallahu alayhi sallam nekk ñeenteelu xalifaam aliyun ku ne xam na ko ci wàllu njàmbaar ak fa mu àggoon ci wàllu xam-xam ak wàllu maandu ak ni ko yonent bi wóoloo woon ba wax ne man maay su ma dee néegu xam-xam Alioune mooy buntu ba Alioune dafa wax lu am solo ci wàllu muñ di ci ñaax euh, doomu aadama yi Alioune nag bu waxee ci wàllu muñ daleen ko war a mën a dégg li tax ñu war ko mën a dégg ndax fa xam-xamam àgg tuuram àgg fa ay mayam àgg fa ci wàllu yàlla boo ko xoolee dundam ci àdduna bi xawoon naa metti ci wàllu wërsëgam ndax wërsëgam bariwul woon ndax wax nen ne sax e, bi muy takk Fatima radiyallahu anha e, la mu def ca ngoro ga Ousmane na Affan moo ko ko jox kon nga xam ne Aliyun amul dara waaye taxuloon mu ñàkk ngorom taxuloon mu ñàkk dignitéem lu dul ne rekk dafa xam ne nattu la bu yàlla teg mu muñ ko ngir yàlla mu mel ni aliyun dafa def benn discours pour ñaax nit ñi wax ne ayuha nnaas ixfadu anni xamsan falaw shadadtum ilayha almataaya xatta tunduuha lam tadfaru bi misliha ala illa rabbah wala yaxaafanna illa dambah wala yastaxyi axadukum ida lam yaclam an yatacallam wa ida suila amma la yaclam an yaqula la aclam ala wa inna alxaamisata alsabr fa inna alsabra min fa inna alsabra min alimaani bi manzilati alras min aljasad man la sabra lahu la imaana lah wa man la rasa lahu la jasada lah wala xayra fi qiraatin illa bi tadabbur wala fi cibaadatin illa bi tafakkur wala fi xilmin illa bi ilm ali ibn radiallahu taala anhu dafa wax ne yéen nit ñi jël leen ci man juróom jële leen ci man juróom yoo xamante ni su ngeen takkoon seeni fas laxas wër àdduna bi yépp nee du ngeen mën a am valeur yu mel ni juróom yi ma leen di jox mu ne bi ci njëkk mooy yéen nit ñi wala yéen jullit yi bu leen yaakaar kenn ku dul yàlla yaakaar leen yàlla ndax yàlla moo jara yaakaar bu ñaareel bi mu ne bu leen ragal lu dul bàkkaar ba ngeen def nit ki warul tiit lu dul bàkkaar ba mu def lu la war a ragal rek na nekk sa bàkkaar mu ne itam bu leen di ruus ci bu ngeen xamul ngeen ŋàbb seen téere dem xamlu ji ndax nit ki ak martaba boo mënti am ak at yoo mënti am itam boo xamul boo gisee ku la mën a xamal demal ci moom mu xamal la mu ne bi ko ñeenteel moo di ne yow mi nga xamante ni yaay xamle buñ la laajee loo xamul itam nee na bu la rëy jàpp ba nga wax loo xamante ni yàlla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci buñ la laajee loo xamul neel xamuma ndax wax nañ ne wa man qaala la adri faqad afta buñ la laajee te lañ la laaj xamuloo ko nga ne xawma ko ubbee nga hmm. ñu ne itam yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne ajraukum ala allahi ajraukum ala alfatwa ki gën a ñeme yàlla ci yéen mooy ki gën a ñeme ubbee kon sidna aliyun nee na képp koo xamante ni daal laaj neen ko te lañ ko laaj xamu ko nee na bu ko rëy jàpp ba mu tontu loo xamante ni yàlla du ci d'accord yonent bi du ci d'accord mu ne nag bi nga xamante moo juree moo juróomeel yooyu ma leen wax moo di muñ mu di thème bi nga xamante ni moom leen fas yéene waxtaane tey mu ne ndax muñ nee na soo ko dee misaal ci nit nee na mooy bopp nee na gëm yàlla bu doon jëmm la ñu ne bopp ba mooy muñ te itam nee na nee na nit mm. soo ca génnee bopp nee na dund dootu fa des ñu ne gëm yàlla itam boo ca génnee muñ kon ngëm dootu fa des mu ne benn yiw nekkul ci njàng moo xamante ni xalaat ak setantal lalu ko mu ne itam amul benn jaamu yàlla boo xamante ni itam xalaat jiituwu ko nit ki dañu bëgg soo dee julli nga xalaat ca yàlla soo dee woor nga xalaat ca yàlla boo dee joxe azaka nga xalaat nga xalaat ca yàlla bépp jaamu yàlla booy def rekk nanga ca xalaat yàlla ndax xalaat googu mooy wane ne yéene bi dellu na fa mu war a dellu te mooy ca yàlla mu ne itam bépp lewet goo xamante ni xam-xam lalu ko nee na lawet googu du amul benn njariñ lawet dafay fekk xam-xam jiitu ko mu mel ni kon sidna ali karamallahu wajhahu def na benn orientation bu am solo ci wàllu muñ wane ni muñ daal su ñu ko génnee ci ngëm yàlla dara du fa des mu mel ni suñu delloo ci alquran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 dëgg te di itam di digle ci muñ mu mel ni boo xoolee saar bi dafa séddalikoo ci ñeenti xaaj xaaj bu njëkk bi moo di al bu ñaareel bi mooy al amalu saalix bu ñetteel bi mooy al tawaasi bil xaq bu ñeenteel bi mooy al ictisaamu bi sabr maanaam boo seetee euh, saar wi da gis ne Eh, digle na ci wàllu ngëm digle na itam nit ki war a farlu ci jëf ju baax digle na itam nit ki di dénk moroomu nitam dëgg te jamono ba mu ko koy dénk itam fekk moom itam mu jàpp ko googu nekk ci digle na itam ci nit ki moy ci eh, jéem a ñoŋu ci wàllu muñ ndax muñ mooy xes na bi nga xamante ni soo ca duggee daanaka obstacle yu bari yu ma yu la mënoon a gàllankoor ci sa wàllu yàlla dafay dal di ñàkk place ci yow moo tax imam Shafii nekk fore bu rëy di njiit ci diine ji wax ne moom daal law lam yunzili llahu siwa hadihi suura la kafati naasu mu ne saar wii su fekkoonte ne moom rek la yàlla wàccee ci alquran mu ne mu doy sëkk kon daal gis nañu ne e, am na benn ñaari wëlu yoo xamante ni wala ñaari nitu yàlla yoo xamante ni fu ñu masaan a daje bu ñu waxtaanee bay dem daan nañu dénkante kenn ku ci nekk dana dénk sa moroom ne ko yow de maa ngi lay dénk nga jàpp ci dëgg ak muñ keneen ki itam ne ko yow itam maa ngi lay dénk nga jàpp ci dëgg ak muñ ñu soog a taxali ko rawa tabaraani an ibnu abbas radiallahu anhuma qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi maalihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila nnaasi kaana ala allahi an yaxfira lahu jële neen ci tabaraani tabaraani nett li jële ci ibnu abdullah ibnu abbas yal na leen yàlla gërëm mu wax ne nit ki su fekkente ne musiba daf ko dal ci alalam walla mu dal ko ci yaramam nee na mu nëbbu ko ba ñu ko tawat nit ñi nee na nëbbu ko nag ngir yàlla nee na yàlla dana ko jéggal ay bakkaaram kon dafa mel ni daal e, sa musiba soo ko dee tawat itam na tawat yàlla waaye lañ ciy bañ mooy jàmbat bu bari ndax jàmbat bu bari boobu day dem ba xaw a jege tuuti wàllu kufru bu ñu xoolee itam eh, yàlla wax na ci alquran lu bari di digle ci wàllu muñ mu mel ni bu ñu bëggee kër yi jàkk fokk ñu fexe ba dugal fa muñ ndax ànd dafa jafe te olof Njaay dafa wax ne ñaar ñu ànd ren ba déwén am na ku cay bëgg a dee maanaam am na ku féete woo muñ ndax ñaar ñuy ànd fokk léeg kenn ki tooñ moroom kon fokk muñalante daal di am moom la benn woykat wax ni jafaw nii walam ajful axillaa inna nii li gayri jamilin min xalili ya muhmilu mu ne man de beccingal nen ma te man duma ngal sama xarit mukk mu ne itam lu sama xarit ñaawle mu ne duma ko feeñal duma ko gis kon mu mel ni kooku ku neex àndal la ndax li tax mu neex a àndal mooy moom jël na charge ki muy àndal fas yéene ko muñal waaye muñ boobu nag dafa am ay daraja yu ci nekk moo tax ba ci wàllu koo xamante ni dafay woote jëme ci yàlla fokk mu muñ bu dee kilifa gi ci kër gi la fokk mu muñ pour nga jubbanti say njaboot teg leen ci yoon fokk nga muñ bu muñ googu amul dara du jag ndax yonent bi sallallahu alayhi yàlla digal na ko ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis salaat wastabir alayha na nga digal say ñoñ ñuy jóg di julli te itam na nga ca muñ ndax digle nag naqar wu nekk mën nga ko caa am léeg-léeg ngay jéema orienté sa njaboot sax pour teg ko ci yoon waaye nga gis ca ak diis diislu wala gis ca yeneen i melokaan yoo xamante ni eh, du la neex mën na di jur sax ci nit ki su fekkente ni amul tolerance mën na tax yeneen i histoire di ci xew waaye su fekkente ne yàlla jox na la ak xàmmee da ngay xam ne rek e, yoon wi e, ku xat xol du ci nekk boroom xol bu yaatu rek moo ci mën a taxaw di woote ba itam loo gis rek nga am toleransu su loolu ngir yàlla ngir xam ne rek ci ndigal nga nekk ñu ne nag mu ñett la as sabru thalatha sabrun ala al maasiya wa sabrun ala al taa wa sabrun alal musiba ñu ne ñetti façon muñ moo am buñ bu njëkk bi mooy muñ ci musiba su fekkee musiba dal na la nga muñ ko ngir yàlla bu ñaareel bi mooy muñ ci topp gi ngay topp yàlla ndax ku ne xam na ne topp yàlla am na difficulté yu ci nekk ndax julli jot nga jàpp ba sell taxaw julli loolu yomb na ci ki nga xamante ni tàggat na xolam tàggat ruuxam ci jaamu yàlla waaye ki nga xamante ni nag tàggatul ruuxam tàggatul xolam ci jaamu yàlla kooku dafay diis ci moom moo tax alquran wax ne wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin julli li muy woyof woyof lu diis la lu dul ca xol ya nga xamante ni ragal yàllaan ca biir mu mel ni kon topp yàlla bi nga xamante ni nit kaa ngi koy def bu ci jiitalul muñ topp ga du mën a yéwén ndax koor daanaka bëccëg gi yépp nga bañ koo lekk ñaare su fekkente ne e, da nga nekk tukulóor e, soo muñul rek danga lekk ci diggante bi te bu boobaa nag doo am yiw gi nga xamante ni moo nekk ci biir koor gi su ko defee nag mu mel ni e, gëm yàlla daal topp ko ak coonoo ngi ci goo xamante ni fokk muñ lal ko pour mu mën a yéwén nit ki noonu itam as-sabru ala al-ma'siya e nit ki itam mooy yàlla dafa neex neexaay goo xamante ni e képp koo xamante ni yaruloo sa bakkan da nga ca nuur nuuraay goo xamante ni mën ngaa dem ba bëgg caa génn tëla moo tax itam nga fexe ba muñ xe lépp luy xeetu mooy nga muñ ko loolu itam e, bokk na ci xeetu muñ yi nga xamante ni limal neen leen ko te mooy muñ musiba bu la dal muñ itam topp gi ngay topp yàlla ndax xam ne fajar jot nga dagg say nelaw dem ci jàkk ju julli loolu yombul waxtu wi jot nga bañ a xaar jóg julli ko ci saasi loolu yombul e xaalis nekk ci sa poche nga soxla sa moroomu jullit ñëw tawat la nga yëkkati jox ko ko loolu yombul yooyu yëpp ay xeeti jaamu la yoo xamante ni nit ki su ci jiitalul muñ du ko mën nit ki noonu itam muñ ci mooy ndax borom alal ji nga xamante ni eh, koppar forum dafa fees dell mu yor otoom yore wér feebarul dara jotu ko eh, àdduna wër ko kooku su muñul bis bu nekk ci mooy yàlla lay dëkk te ni muy muñee moo di mu xam ne teraanga gi yàllaa ko ko jox mais jox ko ko pour mu càkkaayoo ko daf ko ko jox pour mu jaamoo ko yàlla su ko defee mu delloo boppam ca yàlla xam na itam lii teraanga la buñ ko dénk mu war cee jaamu yàlla te bañ cee moy loolu itam eh, yombul ndax àdduna bi eh, da nga décider dara sax bëggu koo def kàccoor jóge ca àll ba fexe ba génne la ca dugal la ca leneen waaye rek su la yàlla dimbalee nga am xolu muñ ci moy loolu mën nga mën nga ca échappé mu mel ni nag yent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dañul di ko jubbanti di xool ay mbiram di ko nemmeeku ba saa su nekk muy waxtaan ak moom ndax dafa nekk nit koo xamante ni du nitu ordinaire ndax mooy modelu jullit ñi ñépp ci moom leen war a xool moo tax yàlla wax ak moom ne ko am na ci yonent yi ñoo xamante ni gërëm naa leen ndax dañoo muñ mu ne nag kon nga jël sa bët teg ko ci ñooña mu ne ko wasbir kama sabara ulul azm min ar rusul ulul min ar rusul nag boo demee ci aaya ba sharaa lakum min ad diini maa wasa bihi nuuxan walladi awxaynaa ilayk wa maa wasaynaa bihi ibrahima wa muusa wa isa boo demee ci aaya boobu da nga gis ne ñooñu ñoo di ulul azm te moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ulul azm la bokk yonent yàlla noox ci ulul azm la bokk yonent yàlla ibrahim ci ulul azm la bokk yonent yàlla muusa ci ulul azm la bokk yonent yàlla isa ci ulul azm la bokk ñii ñooy juróomi yonent yi nga xamante ni yonent yépp ñoom ñoo ci gën gën waaye nag yonent yi yépp nag e, juróomi yonent yi yépp muhammad moo ci gën kon nga xam ne kon muhammad moo gën ci yonent yi waaye yonent yi itam juróom yi ñoom ñoo ci gën li tax nag ñu gën ci mooy fa ñu àgg ca muñ kenn àggu fa ci yonent yi ba tax na kon segam la yonent segam yonent bi la yàlla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamante ni suñu jëf àggagul fenn te itam mu mel ni e, boo tuddee muñ da nga tudd lu ñuy tuddee as shukr boo ne ak sabr fokk rek nga ne as shukr maanaam muñ fokk mu ànd ak sant ndax cant gi ngay defal sa boroom sant ko ci xéewal yim la defal mooy tax bu la tegee nattu nattu ba nga mën koo muñ waaye ku santul boroomam su la tegee nattu itam doo ko mën a muñ moom la waykat bi wax ne wa aqrabu siraati rahimi shukru ibaadihi ala naimi law alima annaasu bi ma fi shukri la kaanu malja la kaana maljaan lahum fi dahr mu ne yoon wi gën a mën a jegeñal nit ki ci mu àgg ci boroomam moo di mu saxoo sant yàlla mu ne nit ñi xamoon li nekk ci sant mu ne kon dana nekk kon sant yàlla dana nekk seen weeruwaay ba keroog àdduna bi di tukki kon nga xam ne eh, sant yàlla lu am solo la waaye nag ñu ne e, assaabir afdal min ash-shaakir ñu ne ki muñ moo ëpp ay ngëneel ki sant yàlla ñu ne ndax muñ moo ëpp garaat ñu ne lu tax ñu ne li na shaakir ma al mazid wa saabir maa allah ñu ne ndax ki sant yàlla kooku dafa sàkku ndollent ndax yàlla moo wax ci alquran ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santee ma dolli leen kon kiy sant yàlla dafa mel ni dafa xemmeem pour yàlla dolli ko waaye ki muñ nag moom wutoon dollent dafa muñ rek ngir yàlla moo tax ñooñu nag ñoo ëpp martaba ñoo ëpp garaat ndax yàlla wax na ci alquran ne inna allaha maa sabirin maanaam yàlla mu ngi ànd ak way muñ te itam dañu wax ne e, yàlla su bëggee nit ki rekk nattu ko yàlla su bëggee nit ki nattu ko inna allaha ida ahaba abdan ibtalaahu wa ida ibtalaahu ñu ne yàlla bu bëggee nit ki bu bëggee jaamam dana ko nattu te bu ko nattoo itam jaamam boobu dana muñ ñu ne ci wàllu xikaaya dafa amoon benn jigéen boo xamante ni dafa am jëkkër jëkkër ji liggéey yi nag ba mu wàccee sonn lool ci liggéey ba ba mu ñëwee yàlla dogal mu ñëw daldi wax soxnaam si ne ko dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daal di dem ca ndaa la di ko may ndox mu naan waaye ni mu tëddee nii ci lal bi rek e far coono beek noflaay bi jàpp ko ak péex mi mu daldi nelaw bi mu nelawee soxna si ñëw ak pot bi comme mag ña dañ leen a yaroon ci wàllu sëy ba dafa mel ni dañuy jaamu seen jëkkër loolu taxoon itam e, ndaw sa amoon war ma lool ci jëkkër ji mu mel ni bi soxna si demee daal di dem wuti ndox ñëw taxaw fekk boroom këram mu ngi tëdd di nelaw ndax coono mu taxaw rek di ko xaar téye pot bi di ko xaar di ko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw di ko xaar rek niki noonu rek E, jëkkër ji daal di yeewu brusquement bi mu yeewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mënoo ma woon a yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne day man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoo maa def lu ma naqari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ni la yonent bi waxoon ne e, su fekkoon dagan na nit di sujootal moroomu nitam kon jigéen dana sujootal jëkkëram yow de yaa ngi ca yoon wow ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni lu naqari la te bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni mosuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ni sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay e, man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sa baat sama baat mu ne ko ah, balaa ma laa may sama baat nag sa baat nag fokk ñu ànd ba ca ka ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daldi war mbaam wara jóge ci dëkk ba ñu nekk wuti beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag e, génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox di dox di dox ba jikk rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf nekk la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi nekk la ñëw ba e, jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yépp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal mu takkal ko bopp bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag aajeetul ah, nag ñuy dem ci sa sëriñ ba nanoo ànd delluwaat kër ga maa la ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné ne ma itam E bàyyi ko nanu ñibbi ca kër gi mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir fi suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd nañ ñaar fukki at maak yow mosuloo am problème mosumaa gis yàlla nattu la mosumaa gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg nga gisuma daal benn nattu boo xamante ni yàlla teg na la ko i ma xam ne itam kon bokkuloo ca ñu yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow mosuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg-bëgg ma bësanteeg sama xol rek e, wax dëgg yàlla e, ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon ma ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon wi e, caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jë toj ci laa xame ne itam yàlla gërëm na la looloo tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër ga kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis-gis bu xóot ci biir sëyam xam ne e, bu nattu ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag dañu wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal nañu jël seen alal xam ne fokk yàlla nattu leen ndax yonent yi fi jiitu woon nekk ay tànneef yàlla tànn leen ñu gën ca nit xeet yañ doon dund yonent yooyu musuñoo dañ mukk di nekk ci ay natt moo tax an muhammad ibnu maslama عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير لعبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسده إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه وإذا ابتلاه صبر jële neen ci Muhammad ibnu Muslim mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne benn yiw nekkul ci waajoo xamante ni du am mukk problème ci alalam du am mukk problème ci yaramam feebar léeg-léeg mu jàmbat bopp buy métti wala muy jàmbat yaram wuy metti nee na kooku daal képp koo xamante ni lépp ba ngi dox te jàmbatul dara ci wàllu wér-gi yaramam wala ci wàllu alata alalam mu ne kooku de e, nit la koo xamante ni yiwam bariwul ndax yàlla su bëggee jaamam daf koy nattu te bu nattoo jaamam itam jaam ba muñ e ñu ne an wahb radiallahu anhu annahu qaal qaala muusa alayhi salaam yowma tuur yaa rab ayu manzilin min manazili aljanna ahabu ilayk qaala allahu taala ya muusa xadirat alquds qaala ya rab man yaskunuha qaala asxaabu almasaib qaala rabbi sifhum sifhum lii e yàlla dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tuuru Sina dafa wax ak yonent yàlla Muusa ci tuuru Sina yonent yàlla Muusa laaj ko ne ko yow sama boroom bën kër moo gën ci këru àjjana yi ban kër moo la gënal yow yàlla nga xamante ni tey moom nga gën a préféré ci këru àjjana yi mu ne ko xadiratul quds benn kër gu ñuy wax xadiratul quds foofu laa gën a préféré moom laa gën a bëgg mu ne ko waaw yàlla foofu ñen ñoo fay dëkk ëllëg mu ne ko borom musiba yi ñi ma teg nattu ñu nangu ko ñoo fay dëkk ëllëg mu ne ko waaw mënoo maa melalal ñu nga xamante ni teg nga leen natt eh, yàlla wax ko ne ko hum qawmun ida asaabathum baliya sabaru wa ida anamtu alayhim shakaru wa ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun haulaai sukkaanu xadirati alquds mu ne ko ñooñu de Muusa mooy ñi nga xamante ni su ma leen tegee nattu ñu muñ ko su ma leen joxe ay xéewal ñu sant ma ca te duñ ma ca mooy mukk su fekkente ni itam musiba dal na leen ñu delloowaat seen bopp ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun de yàlla rekk moo ñu moom te ci moom la ñuy dellu mu mel ni bu ñu dee tudd wàllu muñ fokk ñu tudd eh, yonent yàlla ayub ndax ku muñoon la ñu ne ayuba moomu is moo ko jur is isxaqa ko jur isxaqa ibrahim moo ko jur ñu ne romain la woon yaayam nag e, e, doomu luut moom moo ko juróon te luut itam nekkoon yonent ñu ne jabaram moom ayub mu ngi e, afrayim moo ko juróon te afrayim doomu doom la woon ci yuusuf alayhi salaam ñu ne papaam dafa bëri woon alal lool moom ayub baayam dafa bari woon alal lool bi baayam génnee àdduna nag moom eh, ayub yàlla dogal mu donn alalu baay ji ba mu dol ba mu donnee alalu baay ja nag yàlla dogal itam yàlla def ko mu nekk yonent mu jël alal ja jaamoo ko yàlla ba mu jeex ndax tabaxal na leen ci ay jàkk dimbali na way ñàkk ñi dimbali na miskin yi teral na ci ay gan te itam képp kuy jirim taxawoon na nekk sa baay jigéen ñi nga xamante ni dañu ñàkkoon seen jëkkër yépp taxaw na taxawaayu jëkkër ci ñoom di leen dimbale ba mosuñoo ñàkk dépense mu daan diglal digle lu baax di tere lu bon waxoon na itam ñi nga xamante ni ñoo ko jege woon te daan ko jàppale ci alalam mu ne leen sama alal la cay mbay ak la cay meññent yépp bu leen ko tere nit ñi sama alal def naa ko waqfan lillaahi jaam jaam yépp mën nañ ci euh, soppandiku nu leen neexe ku gëm yàlla ku gëmul yàlla yépp mën nañ ciy jëfandiku sama alal daal pour njabootu yàlla gi la et bi nga xamante ni yàlla dogal na na Ayub nekk ci melokaan wu rafet wii daan na jékki-jékki sax di ñaan yàlla di wax ak moom naan ko yaa ilahi hadihi ataayaaka li cibaadika fi sijni dunya fa kayfa ataayaaka fi ljanna li ahli karamatik fi daari diyaafatik mu ne ko yàlla sa taraanga yii nga defal sa jaam yi ci àdduna bi rekk nee na taraanga yu yéeme la kon de yéemu naa taraanga ya nga xamante ni moom nga dencal ña nga sopp ëllëg te fas yéene leen cee ganale mu ne moom ayub wa maa hada kulli laa yaxfal qalbuhu an shukri naamaihi wala lisaanuhu an shukri mawlaa nee na moom ayub xolam mësuta sàggan ci sant xéewal yi ko yàlla defal làmmiñam itam mësuta dañ mukk di tudd yàlla di ko sant nee na nag iblis bi mu xoolee melokaan wii nga xamante ni moo nekk ci yonent yàlla ayub iblis daal di ko koy iñaane ñu ne moom iblis daal di wax ne inna ayuba qad dahaba bi dunya wal axira mu ne ah yontu yàlla ayuba de am na àdduna am na àllaaxira moom yàlla jox na ko alal te alal ja jaamu na ci yàlla te ëllëg itam dana dugg àjjana mu ne waaye fokk rek ma yàqal ko danaa fexe ba nga xamante ni daal ñaari yiw yi dana am bum ci perte benn mu perte alal ji mu yor fii ci àdduna wala mu perte yiw wa nga xamante ni moom la war a am ëllëg àllaaxira ñu ne wa laanatullahi alayhi fi dalika zaman yascadu ila alsamaai alsaabica wa yaqifu fi ayi makaanin shaa fa sacada yowman kama kaana yascad fa qaala lahu rabu alciza ya laciin kayfa raayta cabdi ayub wa hal nilta minhu cheyan fa qaala ilaahi inna ayuba yacbuduka li annaka actaytahu saa fi dunya walcaafiya wa lawlaa dalik lam yacbudka fa huwa cabdu alcaafiya fa qaala lahu llahu taala kadabt fa inni aclamu annahu yacbuduni wa yashkuru lii wa in lam yakun saa fi dunia mu ne ko ñu ne iblis ci jamono boobu da daan dem ci asamaanu juróom-ñaar maanaam am na kàttanu dem ba ci asamaanu juróom-ñaar te amoon na garaatu barab bu ko neex ci asamaan si mën na faa dem fu ko neex rek mën na faa dem ndax iblis yàlla ci boppam ci machi am la ko kàttanale muy soppandiku ci mbewteem lu ko neex waaye benn bis la dem ci asamaanu juróom-ñaar yàlla wax faak moom ne ko iblis mu ne ko la labbayk mu ne ko maa ngi lay laaj loo xam ci sama jaam boobu ñuy wax ayub mu ne ko ah ayuba de moom raw na ndax jox nga ko yiwu àdduna jox ko yiwu àllaaxira mu ne ko ndax ayuba E, mu ngi lay sant di la jaamu xam naa xéewal gi nga ko defal moo tax mu lay sant di la jaamu xam nga iblis dafa muus yàlla ne ko déedéet e, xéewal gi ma ko defal taxul mu may sant di ma jaamu moom sax bu ma nangu woon xéewal gi itam mu continuer ci jaamu gam ma daan jàmm ndax iblis ku baax kii ndax e, ayuba ku baax la mu ne ko mu ne ko ah wutal ma pexe ci moom rek mu ma duggee ci moom soo ma wutalee pexe da nga xam ne eh, ayuba ci boppam eh, alal ji nga ko jox moo tax mu lay jaamu waaye bu dul woon alal ji du la jaamu dégg nga foofu iblis bëgg na rekk ci machi a yàlla yàlla dooleel ko ba mu mën a am yoon ci jaamam bu sell boobu yàlla ne ko waaw dooleel naa la ci moom waaye nag garanti naa ne xol ba ak ruux ga doo ci mën dara xolam moom maa ca nekk ruuxam itam mënoo ko jël mukk yaramam nag ak alalam lu la neex mën nga ko cee def iblis daa di ñëw fa rajaa iblis fa intalaqa ila shatti albahr fa saraxa sarxatan xata lam yabqa jinniyun wala jinniya illa ijtamacu cindahu wa qaal ma asaabaka ya sayidana qaala fa inni wajadtu fursatan ma wajadtu mislaha mundu axrajtu aadama minal al janna fa a'inuuni ala ayub mu ne iblis bi mu dellusee fii ci suuf nag dafa dem ca tefesu géej ga daal di taxaw yuuxu yuuxu bu foor yuuxu woote ne yéen jinne yépp na ngeen ma wuy si fii xam nga iblis moom mooy buuru jinne yi nga xamante ni gëmuñu yàlla ndax jinne yi ñaari kuréel lañu kuréel boo xamante ni dañu gëm yàlla di ko topp comme ni ko nit ñi di toppee audit ña amee am ci itam ay kàccoor yoo xamante ni àdduna rek ñoo leen yitteel ni ko nit ñi amee noonu la ko jinne yi amee ba Iblis taxawee ci tefesu géej gi yooxu lépp luy jinne ju góor wala ngay jinne ju jigéen ñëw nga fekk si ko ci tefesu géej gi bi ñu ñëwee mu ne leen ñu ne ko lan moo xew yow suñu sang mu ne leen man de tey am na occasion boo xamante ni gëj naa koo am depuis ba ma génnee aadam eh, ca àjjana ba ma defee samay pexe ba mu génn ci àjjana depuis boobu ba léegi mosuma am occasion bu mel nii comme am na occasion bi nag tey danaa ko exploiter mu ne waaye nag maa ngi leen di ñaan yéen ngeen dimbali ma e, jinne yépp daa di tasaaroo mu jox leen ay ndigal ne leen li ngeen di def mooy lépp loo xamante ni ayuba amoon na ko ci alal ndax waxoon leen ne ayuba li mu amoon ci nag ak i bëy ak i xar ak li mu amoon ci alal kenn xamul nu mu toll e, te at mu jot alal ji day gën a yokk waaye du wàññeeku ndax jaamu bu nit di jaamu yàlla ci alalam day yokk alal ji waaye mooy gu nit di mooy ci alalam day wàññi alalam waaye li taxoon alalu ayuba di yokk mooy jaamu gu mu doon jaamu yàlla ci alalam ci biir loolu nag mu nekkoon lépp lu ayuba am ci ay magasin na ngeen ko lakk seytaane yi daal di dem fexe ba lépp loo xamante ni ayuba amoon na ko ci alal ñu lakk ko yàq ko ba lépp yàqu iblis daal taxaw surveiller leen ba ñu yàq ba noppi fam sarafa iblisu ila ayuba wa huwa qaimun yusalli fi lmasjid fa qaal atacbudu rabbak fi durrik wa qad arsala naaran min alsamaai ala jamici amwaalik fa lam yukallimhu xatta faraga min yi iblis bi mu ñëwee ci ayub daf ne ko yow de yaa ngi taxaw mu ngi ko fekk ci jàkk ji muy julli mu ne ko yow de yaa ngi nekk fii di julli di jaamu sa boroom te yaa ngi eh, sa alal yépp yàqu na ndax yàlla mii ngay jaamu yebal na safara mu jóge ci kaw asamaan ñëw lépp loo amoon ci alal lakk na ko ba jeex na tàkk nga taxaw fii naan dangay jaamu sa boroom waaye bi mu waxee ba noppi ba faalewu ko lu dul dafa continuer julleem ba julli gi àgg ba mu paree la ko geesu ne ko alhamdulillahi alladi aataani thumma axaza minni thumma qaama wa sharaa fi salaatihi bi mu noppee daal dane ko maa ngi sant buur bi nga xamante ni moo ma jox moo ma joxoon alal jooju ndax bi muy gane si àdduna ëndaalewu ko moo ko jëlaat ci man itam te itam xam naa ne jël ga jël gi mu ko jël ci man du jéppi ma taxul mu jël ko ay def ko jël rekk ngir xikmaam moom moo tax la la moo xam la tax mu jël ko daal di jógaat kàbbar ñaari rakkaam di julli ñeneen fam sarafa iblisu xaayiban iblis daal di jóg xam ne pert na xam ne kii nitu yàlla la boo xamante ne xol ba yàlla rek moo fa boofu nee na eh, yontu yàlla ayuba amoon na fukki doom ak ñeent juróom-ñetti doom yi góor lañu juróom-benn yi ay jigéen leen ñoom nag dañu dëppoo woon ci seen biir ndax yar bu leen seen baay yar ci dëppale seen xol ci yar leen ci yar bu rafet tax ñoom dañ daan dajaloo léeg-léeg kenn ku ci nekk am na kër waaye léeg-léeg duñ nang kenn ku nekk du nangoo añe ci sa kër fokk ñoom ñooy dajaloo dem ci kër kenn ci seen freer yi ñu añe fa yàlla dogal nag ñu daje ci seen kër mag bu góor doon añe foofu bi ñu nekkee foofu di añ nag la iblis ñëw ci jinne yi ne leen dem leen lépp lu mu am ci njaboot muy jigéen wala muy góor nangeen leen rey du ñu ñëwee fekk leen ñu toog di añ ñu jël kër ga mabbal ko ci seen kaw doomam ya mu amoon yépp daldi faatu génn àdduna dégg nga iblis daldi retourné waat ñëw fekkaat ayuba mu ngi ci jàkk ji di julli mu ñëw ne ko yaa ngi toog fii di julli waaye sa doom yépp dee nanu ndax kër gaa daanu ci seen kow bi mu noppee julleem ba pare la ko geestu ne ko alhamdulillahi alladi aataani summa axada minni li ñuy wax naan gor du soppeeku dëgg la moom daal kàddoom benn la maa ngi sant buur bi nga xamante ni mooma joxoon daldi koy jëlaat loolu nag daal def ci iblis ak mer ndax yaakaar na ne nit ki su ko jaaree ci alalam mën na koo merloo waaw bu doon nit ordinaire mën na koo merloo waaye nag bu dee nit koo xamante ni yàlla rekk a fees ci xolam kooku du ko merloo mukk mu jaar ko ci ay doomam te al maalu siinatu xayaati dunya yàlla nee na alal ju bari ak ay doom nee na mooy taaru àdduna yow nga gëmm loolu lépp gisuloo ko lu dul yàlla rek nga gis kooku nit simple mënu ko kooku nit ku yar boppam rek ci jikko yu kawe moom moo ko mën kon Ayub fekkoon na mu yar boppam ci jikko yu kawe jikko yu kawe yooyu moo tax bi Iblis ñëwee ne ko say doom yépp dee neen mu ne ko yàlla ma ko joxoon nangu na ko moo ko sañ léegi nag Iblis daal di mer bàyyi ko ba muy continuer julleem moom daal di ñëw daal di ëf dugal ngelawal seytaane ci ay noppam ak ki ak gémmiñam manam ëf ko ngelaw loo xamante ni li nit ñi di wax léeg-léeg ngelawul seytaane mu daal koy ëf benn ngelaw ngelaw la nag mu nga jaar ca bakkan ya jaar itam ca nopp ya loolu nag def ci ayuba feebar boo xamante ni feebar bu metti la nga xool ne yonent yàlla ayub ak fi mu tolloon ci alal ak teraanga feebar na feebar boo xamante ni dem na ba ñépp di ko daw léegi ñàkk na alalam ñàkk na ay doomam ñàkk na wéram mujj gi nag yaram wi dem ba soppeeku coppeeku koo xamante ni wax dëgg yàlla neexul woon a jege ba nit ñépp di ko daw foofu nag fekk amoon na ñetti jabar ñaar ña daldi ñëw ne ko ñun de nijaay li ñu bëgg mooy nga may ñu baat ndax daal wax dëgg yàlla fu mu ne nii kenn mënatulaa jariñoo yow xam naa bàmmeel rekk la dese mu ne leen waaw may naa leen seen baat ñu dem léegi daal benn soxna rek la dese mu di raxmatu mi nga xamante ni e, sët la ci yonent yàlla ayub e, yonent yàlla yuusuf te yonent yàlla yuusuf moom moo nekkoon e, azizu misra léegi yonent yàlla ayuba nekk ci feebar boobu feebar bi metti lool mbokkam yépp daw alalam yàqu na doomam yi génneen àdduna wératul desewul lu dul benn soxna moo koy tëral di yëkkati di ko jox muy lekk ñu dem ba amatuñu dara yoreetuñu dara fa ñu dëkkoon sax génne nañ leen ndax wax ne feebar bi day wàlle comme feebar bi day wàlle nañ ko génne ci dëkk bi ñu jël ko sànni ko ca biti loolu lépp yonent yàlla ayuba muñ rekk ànd ak yàlla ndax inna allaha maa sabirin mu muñ muñ gu foor muñ goo xamante ni muñ gu yéeme la waaye bis soxnaam génnoon na doon wuti loo xamante ni e, lu ñu mën a dundee la ci wàllu dugub lu jëm ci wàllu mburu walla leneen loo xamante ni mën nañ ko dunde yàlla dogal nag ba mu demee yéex a ñëw yéex googu nag tax ayuba yaakaar ne soxnaam da doon dox tànki caaxaan ba mu géñ ne su dellusee dana ko dana ko dóor waaye yàlla wax yu ko wax ko ne ko sa soxna si de doxul lu dul jàmm doxul lu dul yiw yow rek la doon wutali loo xamante ni danga ko mën a lekk waaye doxul tànku caaxaan waaye nag kom giñ nga na nga wut takku ñax su ko defee nga dóor ko ko comme dóor nga wax su ko defee nga bañ a teeñu sa ngiñ yàlla dogal ci eh, yàlla ayuba feebar bi metti